mais mais non si mooy gor jub si gor dëgg la non karoon na jumaa ji peinture ko raaq jub si ngay gor bamba bamba jub su pare dañ koy tabaxal néeg ci jumaa ji rek jox ko mu nodd jeena